koy fàttali baaxoo ey waay Gaynde Njaay bu ñu kenn rey lii suñu cosaan la bu ñu kenn rey lii suñu cosaani maam booy la Simu Njaay Gaynde Njaay doomi Gaynde Njaay jàppal jaay baa nga may sa yaay njaay gaynde njaay ibrahima xaliilulaay ibrahima taalibe sëriñ Mansoor dafa ñëw yaay guy gu rëy gi ibrahima bu may bëgg a woy mooy suñu gaynde njaay ñanka yow lay roy pap sugu yow lay roy xale yi yow roy si yow la ñu gisee ay karaw gaynde njaay yaa tasaare jeejawaay yaa tasaare marché bu bees yaa tasaare marché njaareem kii mooy Ibrahima Khalilulaay gaynde maa ko doon wéyal naan Ibou Kane taalibe Mansour lu ko tax a siiw leer na ma taalibe Mansour lu ko tax a siiw bëgg na Ibrahima madam ñi ngi woowee maamam waaye abi kan woowee baay ja bu simbu tollee fii la bu simbu neexee la doomu yaayu baaba Ali doomu yaayu ñànk borom te ngeej mënuma ko woon wax ndax dama ne man si jëmm ji laa dooree maax moom fu boobu gaynde yi bëri boo seetee boobu saajo Ndiaye la Sadio Ndiaye Pape Ngom gaynde ak moom mii la mais boobu léegi mu siy liggéey lu rafet barki yeneen bi te am na jotu gaynde yi xale yi fu ko xale woowee mu ñëw kon Ibou Kane ñu lay remercier di lay sant bu baax a baax di lay gërëm. waa jafe-jafe yi simbukat yi am nu ma ko jàppee maanaam mooy nu ko comme nu ko gars waxee rek neexul kenn parce que ñun ay kilifa lañu sàccuñu fenuñu jëluñu yëfu jàmbur sàccuñu. fenuñu jëluñu yëfu jàmbur dañuy daan suñ doole rek lu ñu am yóbbul suñuy jabar ak suñuy doom kon war nañ ñu mun a may jàmm ñu simbu nagement nii kenn bañ ñu déranger waaw waaw loolu noonu fédération bi bu ko defee def na lu ko war ndax lii dafay wane ni Sénégal ñun gaynde yëpp ñun benn lañu barki yonent bi loo si gis nit jóge na Mbuur ñëw nit jóge na Kaolack ñëw Ibou Kane mu nga xam ne adduna bi yëpp dañ ko doon laajte forom bu ñu ne ana Ibou Kane ndax mi ngi fi wala nekku fi moom it mu ñëw ñoom Ibrahima ñoom Gambien ñoom Iba Diop ñoom ñëpp teew kon lii vraiment wuyu na boromam quoi ok. waaw ñu leen di siyaar waaw euh, man la Baba Ali. di faux fii ci Sénégal di leen wax ne maa ngi siyaar ñëpp di nuyu waa Jolof bi yëpp di nuyu waa àdduna di nuyu waa diaspora di siyaar sama mbokk gaynde yëpp waaw di nuyu waa Ngor Wakaam Medina Fass Gueule Tapée Colobane Kër Mbaye Fall yëpp Tëngéej ñëpp maa leen nuyu waa Yaraax di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ne kat tey dañu am initiative bu rafet boo xamante tey jii moo ñu fi indi tey Mhm. waaw lii dafay wane ne rek ñun ñun gaynde yi ay nit kasalam xam nañ lu lu war ci réew mi ak lu warul ci réew mi ndax lii bu ñu ko defee tey ku nekk sa xel war naa rafet yottu ci gaynde yi ndax lii ñuy def nii defuñu ko kenn rek nga defal waaye daaw la yi ak ñiy faatu ñi ne ci hôpital ak ñi am jafe-jafe ak réew mi ak réew mi am jàmm bu baax a baax a baax a baax a baax moo waral lii tey ñu ne dañuy wàccee kaamil pour ñaanal dëkk da euh, euh, euh, dëkk bi waaw. tey jafe-jafe bi ñuy dund si suñu wàcc suñu wàllu métier bi nii bari na trop trop trop ndax boo xoolee boo xool ay jii nii ñànk bu simbee wala man bu ma simbee keneen ak keneen a simb ci gox police dafay ñëw yàq ko te li waral police di ñëw di ko yàq du ñun xam nga la moo ko waral. maanaam manque respecté doomu aadama ah, parce que tey jii nii boo xoolee boo xool Sénégal Sénégal lan mooy lueur à rouge mooy sunu symbole kon tey jii nii bu ñu demee ba sol drapeau vert jaune rouge di soqali sunu réew du dundal sunu marketinu réew sunu réew am benn cosaan boo xam ne amul ci àdduna doo dem Mali doo dem fenn ba fekk fii la am Sénégal ñun nit ñu toroxal ci loolu te ñun mooy sunu liggéey loolu état bi da cee war a jóg état da cee war a wax. loolu moo suñu feebar ah parce te tey jii nii li waral ñoom ñi la ñun ñu am autorisation moom la ñu autorisé na ñaari doomu aadama ñaari ponkal ñu taxaw ci biir géew di rayante ñu leen di fay ay milliards xam nga mooy lan mooy làmb jaa ngi nii ñi da ngay wax dañuy wax rek te yàlla tax boole ñaari ponkal ñuy dorante ay ay ay ay majéeri ñii di mbëkk di di màtteeg di def lu ne ñu leen di fay ay millions loolu mooy violence lamb ji amul lu ko ëpp violence ci àdduna kon tey nii buñ fu ñu autoriser lamb war nañ fa mën a autoriser simb waaw mais moo loolu loolu yëpp moo gën a danger simb simb léegi acteur de noble la ñun ay acteur facteur de développement lañu ñun du ñu def naka suñu noonu voilà violence bi nag laaj nga ma boo neex mooy dàqante bi ñuy dàqante dafa fu nekkul fépp la ñuy dàqante li ci mel ni Médina doo dàqante ah li ci mel ni fi oto di jaar doo fa dàqante mais bu ñu demee ba ci biir terrain foo xamante ne oto jaaru fa dañ koy bas clôturer ko defar ko ba mu naagis kuy fay dugg ku ko ko fayul nga dem taxaw na le Simba amatul violence ci àdduna amatul foo bu noobul la foo bu neex la foo boo xam ne mag ñi bëgg nañ ko xale yi bëgg nañ ko ah ñëpp bëgg nañ ko kenn bañ ko bu ñu langee Simba rek nga xam ne lii foofu foofu foofu foofu Sénégal waaw ministre de la culture li ñu koy euh, li ñu ñu koy li ñu koy lancé message mooy mu bàyyi xel ci ndawu Sénégal yi rawatina ñun artistes yi ak artiste bu mën a doon muy fecckat bi di woykat bi di simbakat bi ah ak ku mën a doon nañu nañu bàyyi xel ah, parce que ñun dañoo war a ñun ñun dañoo a defar suñu réew ñun sunu réew ñun dañ cee am part ñun artistes yi nekkul bu ñu soxlaa rek la ñuy gëstu ah, wala bu dara amee rek ñu woo ñu ne kaa leen kaa leen def ci lii non ministre de la justice nañ lay ñaan nii laay wa a suulu ah, fecckat bi di woykat bi ak ku mën a doon muy simbakat bi nga la war waaye jox lañu fi àq yelleef ndax ñu dañoo bokk ci Sénégal ñu dañuy dundal Sénégal ñun si école ah, mbër yeeg tànnbéy yeeg lu ne fu ne la ñuy woo ah pour ñu ñëw bokk ci affaire yi pour mën a dool dooleel Sénégal mu jëm kanam. simbakat simbakat yi la woo ñun lañu ñu bokkul baaxul ñun ay facteur de développement lañ bu ci amul dara du neex ndax xam nga loolu la yàlla def ñu ñoo bokk Sénégal ñun Sénégal ñu dañoo war a nemmeeku Sénégal ñoo war a xam Sénégal dañoo war a xam lan mooy simb simb du caaxaan simb du foo waaw euh, li may wax mooy dafa am benn marketing boo xamante ne man dama koy xeex mooy simb guddi man dama koy xeex man te simbkat laa comme ñëpp mais simb simb guddi day jeex si Sénégal kooku moom ah, dama ci insister partout dans le monde simb guddi dafay jeex Sénégal kooku man Baba Ali la engagé ah ah man la assumé te sama responsabilité la nekk xam nga lu tax ah, parce que dafa am ñoo xamante ne dañuy bëgg lu ñu am ci sëmb yi lañ koy jaarale buñu bu làmb ji doxul ñu leen kaal dem simb leen ko may xam nga ne leen koy may waaye man dama koy xeex ba ba mu jógee fi waaw simb guddi moom ànduma ci tey ànduma ci ëllëg ndax maam yi njëkk ya dañ ko daan defee 3 heures ba timis ku ne ñibbi ku ñëwutul nag ba ba timis jot boo ñëwee simb si jeex na dootu amati waaw ñu ngi ziar ñëpp di LD kontaan nañ ci yéen. xam ne maa yëpp siyaar suñu yaay suñu papa yi képp ku ñu bëgg dina seeraan suñu suñu soppeek suñu am di jàmm ñu lay siyaar bu baax. maa ngi tudd Bounakho dëkk ginnaaw raay waaw doon artiste nag doon artiste polyvalent waaw. man man man yàlla dogal ne man damay simb dama daan fecc mais damay simb damay def lépp man damaa damaa complété daal. mais nag maa ngi ci biir simb parce que dama juddoo quartier boo xam ne quartier si milieu simbkat la waaw. jafe-jafe benn comme li gars yi wax rek simb moom dafa nekk loo xamante ne ar bu neex la yaa ngi dégg ñun ba ñun ba xale ñun ñun ñoo judd doon nañ xale di ko seetaan nekk loo xam ne dafa neex mu nekk loo xam ne culture Sénégal la ndax simb amul benn benn dëkk bu koy def bu dul Sénégal Côte am nañ seen réalisé. Cameroun noon mais ñun si mbalaan am mooy mooy mooy suñu suñu aar boo moom moom suñu bopp waaw. def mooy maanaam tey jii nii ñun xam ñun ay sénégalais lañ ñun ñun ñun ñun ñun ñuy def mooy jéem a du dugg jéem a booloo doon benn yaa ngi ah, bokk bokk bokk ñu ñëpp booloo benn àndandoo def dem dem xeex leen mais xeex bi nag nekkul xeex boo xam ne dañuy taxaw di sànni ay xeer wala ñëw. def ko diplomatiquement parce que ñun li ñu def aada ñun waruñu si kenn non violence ñun ñun ñun bëgguñu benn violence ñun kaf ak fooree lañu dañuy dañuy bëggal ay nit moo tax waaw. waaw si mu si mu guddee tam moom parce que si mu guddee rek yoo xam ne yenn yi mu nga ñibbi sama booy ñi siy rax ñoo xam ne si ñooy rax ñooy rax si affaire yi xam nga bu dee génnee rek génne amuñu coono ji def yëfu kenn mais am ñoo xam ne ciy rax guddee bi tamit benn côté moom côté boobu contre naa ko quoi mais gars tamit naa loolu gars yi dinañ ci waxtaan fexe duñ ko jëm a dina éviter ko quoi waaw. waaw asalaamaaleykum waaw maa ngi nuyu Sénégal ñëpp képp ku fi nekk rek maa ngi lay ziare di la ñaanal jàmm waaw man maa ngi tudd Cheikh ma nekk ci ñànk bi ànd moom ñun nag anciens yi lañ quoi anciens gaynde yi waaw. ñun ñoo nekk ci gars yi waaw ñu solu léeg ñu ñàkk bañ a solu waaw.

ñun lii la ñuy tiitaroo lii moo ñu may soxna moo ñu may ay kër waaw moo ñu may soxna moo ñu may kër danoo bëgg ñu ñu jox ñu cër bi nu moom ñun xam nga li gën a bon mooy ngay utiliser nit bu pare te bu soxlaa dara ne la lii laa soxla nga ne ko duñ ko def pourtant da ngay dem nii ci biir police bi sax nga ñëw ne carrément autorisation laa soxla ñu ne la carrément duñ la ko may duñu mayee autorisation da ngay mujjee lay beneen lay pour mun a am comprend nga parce que li ko waral loolu lépp mooy dañ ñoo tegul fenn te ñun ci Sénégal lan bokk Sénégal lan bokk nañ ñu jox cër bi nu moom parce que ñun dañoo bëgg ñu wàcceel ñu autorisation bi ñu wàccel ñu ko pour ñu mun a nekk ci suñuy def ñun pourtant boo xoolee tey demal ndar ndar simb bu fa am dangay ngay gis ay policiers ñooy taxaw gardel leen la moo waral loolu mais ñun suñu bopp la moo waral ñoom seen bopp war ñu mun a jàppale te ñoom bu élection jotee wala meeting am ñoom du ñu xalaat kenn kenn la ñuy xalaat ñànk wala Baba Ale wala wala wala wala keneen ak keneen keneen ak keneen ak keneen léegi loolu pour lan la nañ ñu jox cër bi ñu moom ñun parce que ñun fii fii lañ dëkk suñu carte yi ñu yor nii tamit carte Sénégal la bu vote jotee ñun ñëpp dañuy jóg dem vote ji waa léegi la moo war a léegi ñun simbakat yi mun ñoo jox cër waaw waaw Cheikh la waaw